Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Le savoir-faire et le savoir-être, vos outils pour le futur, tel est le thème de la journée culturelle de l'Institut de formation professionnelle ICAJ à Matar Mbow. Cette journée qui entre dans le cadre du calendrier universitaire de l'intronisation de l'ambassadeur de l'Iran au Sénégal est aussi une matinée d'intégration et d'échange et de brassage culturel entre le Sénégal et la République islamique d'Iran. Ismaël Marcel Colli a assisté à la journée. La spécificité de cette journée culturelle au-delà de l'intronisation de l'ambassadeur d'Iran au Sénégal comme membre du conseil scientifique de l'ICAJ est une journée de partage et d'intégration, nous dit Abdon Privat Pambou, directeur général de ICAJ, Amadou Maktar Mbow. Cette journée constitue pour nous aussi une journée de partage, c'est une journée d'intégration, c'est une journée de brassage. C'est l'occasion donnée à chaque communauté de présenter leur diversité culturelle à travers euh, l'habillement, à travers euh, la gastronomie à travers travers d'autres faits, mais aussi la géographie, à travers ces journées que les étudiants puissent présenter leur pays présenter les richesses de leur pays et aussi fusionner aussi. C'est la raison pour laquelle le roi du Saloum est venu ici pour pouvoir montrer aussi cette intégration que nous voulons. Le choix du thème s'explique par le fait que l'étudiant doit être un détenteur du savoir et du savoir-être. L'étudiant doit être quelqu'un détenteur du savoir par ses enseignants, mais aussi il doit être détenteur de, du savoir-être pour pouvoir prouver qu'il est un véritable citoyen pour la société. Et c'est en cela que nous nous battons pour en compte tous ces volets-là. Pas seulement donner le savoir, inculquer même, je dirais, le savoir à nos étudiants, mais nous devons les amener aussi à être des véritables citoyens pour la société. C'est pourquoi nous avons choisi ce terme, le savoir, le savoir-être, le savoir-faire, pour permettre à nos étudiants de puissent faire montre de ce qui les a enseignés, mais aussi demain d'être des véritables acteurs, tant pour l'entreprise qui en a besoin, mais tant aussi pour nos au Sénégal, Mohamed Reza Desheri, se dit très honoré. Je suis très ravi d'être honoré comme membre de IKJ Matarembo ainsi que de CACSUP et de devenir euh, ambassadeur de ces établissements qui travaille pour la paix et consolider les liens d'amitié entre les nations. IKJ est une école née en 2013 sous l'impulsion d'une organisation panafricaine qui s'appelle CAPSUP et dont l'objectif est d'aider les étudiants issus des familles défavorisées. C'est dit très honoré. Et puis, autre journée de réflexion de l'association des écrivains de la Mouridia Une journée de réflexion qui a eu comme cadre la mosquée Massalikul où deux thèmes ont été évoqués, à savoir la publication d'une revue littéraire, scientifique et culturelle dénommée Khalimak Mouride et l'organisation de la deuxième édition de la foire des écrivains de la Mouridia Flaem, prévue du au août à la mosquée Massalikul Jinan et du au septembre à la grande mosquée de Touba. Voici le secrétaire général de l'AEM, Serigne Mortala Cissé. Nous avons Euh, revenir sur tout ce que nous avons fait depuis la création de cette association en décembre 2021. Euh, donc, euh, euh, le secrétaire général euh, et le secrétaire général adjoint ont présenté des rapports sur ces, sur ces aspects-là. Mais l'essentiel de cette journée euh, était porté sur deux questions, comme vous l'avez dit. donc, la production euh, la publication d'un magazine et l'organisation de la deuxième édition de la foire du livre de la e Euh, ce qui a été retenu, c'est que euh, pour euh, le magazine, on a déjà produit, on a déjà fait le travail de conception, on a produit huit documents euh, sur l'ensemble du processus de la publication d'un périodique, d'un journal ou bien d'un magazine. Et il semble euh, tout le monde adhère à l'idée et que les propositions ont été retenues, même s'il y a des propositions, d'autres propositions qui viennent renforcer le contenu de ce que nous avons fait. Mais euh, l'essentiel est que euh, nous allons bientôt, Inch'Allah, produire euh, et publier un, un, un magazine euh, qui sera un outil euh, donc euh, de l'association pour diviser non seulement les activités euh, de l'association, des membres de l'association, mais également euh, les produits des autres euh, écrivains et auteurs mourides et chercheurs mourides. Nous allons également essayer de Euh, revenir sur les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, mm. euh, les conceptualiser comme nous l'avons euh, déjà dit et les contextualiser et certainement de les utiliser mm. euh, pour donc relever les défis qui, qui nous interpellent et résoudre les problèmes, les, les crises, les multiples crises auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Nous avons besoin de références, nous avons besoin de ressources, nous avons besoin des outils et tout cela nous avons dans le mouridisme. Mm. De, euh, pour, pour la foire, donc, on a retenu également également leader euh, de euh, d'organiser une deuxième édition donc de cette foire du livre à Massalikul Jinaan et à Touba. On a déjà retenu des dates mais c'est provisoire. Euh, peut-être fin mois d'août En marge de l'événement, le président de l'AEM, Babacar Khouma, a plaidé pour l'introduction des enseignements de Serigne Touba dans les curricula de l'éducation nationale au Sénégal. Il a indiqué que des khassidés comme Massalikul Jinan, Tasawur Sikha, Tasawur Soukban pourraient être des viatiques de la jeunesse par rapport aux instabilités qu'on note ces temps-ci au Sénégal. Nous l'écoutons. Par rapport à notre mission et à nos objectifs, il nous importe d'œuvrer pour la vulgarisation au plan national et international de la vie et des œuvres du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmed Bambambaki. Ainsi, nous devons avoir comme ambition de travailler avec les autorités compétentes pour l'introduction des écrits de Serine Touba dans le système éducatif sénégalais, étant entendu que l'illustre personnage constitue un modèle et une référence à tout point de vue pour inscrire notre pays et l'Afrique dans les sillons de la bonne pratique religieuse, de l'épanouissement social et culturel, du développement économique, de la stabilité et de la paix sociale. Il nous est ainsi loisible de définir un plan d'action et un programme d'activité au Sénégal et à l'étranger, avec des séries de conférences, d'exposés sur la doctrine de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké et la nécessité de son nappropriation euh, pour le salut des êtres humains sur terre et dans l'au-delà. Notre entreprise est grandiose, mais avec la baraka de notre illustre Wassila, de notre vénéré Khalif Srej Muntakha Bachir Mbake, et la conjugaison des efforts et des ressources, nous allons parvenir à l'atteinte de nos objectifs et perspectives assignées. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. dal nag jàmm ki seen xibaaru mbatit dañu koy dooree ak bés bi ñu jagle loon lépp jëm ci wàllum xalaat ak xam-xam tuddee ko le savoir faire le savoir être doon ponk bi nga xam ne moom doon waxtaanee ci journée culturelle institut de formation professionnelle ICAJ bi nga xam ne Amadou Mahtar Mbow lañ ko dippee journée boobu la nag yemook bés bi ñuy màggal teewaayu ambassadeur Iran fii ci réew Sénégal mu doonoon bés boo xam ne jot nañ ci saafoon mbatit ak aada cosaan diggante Sénégal ak réewu Iran nañ ci ànd ak Ismaël Marcel Colly. particularité bi la journée ginnaaw intronisation ambassadeur bu Iran ci mim réew comme membre du conseil scientifique bu ICAJ doon na journée de partage ak d'intégration ku ñu xamal lu ñu mel Ibrahima El Assar di président cap CAPSUB ak président EKJ Amadou Maktar Mbow. nous sommes une organisation panafricaine soo fi xoolee ay nationalités yu bëri ñoo fi nekk yàgg nañ di ko def sax depuis vingt ans ay journée panafricaine yoo xam ne ñu ngi ko fiy def donc lii tey dafay baax parce que tey suñu demee bay def culture ñuy wane seen cosaan séeréer yi tchadien yi nationalité fi ku nekk di woon ne culture je pense que intégration africaine mi ngi commencé par intégration des peuples te li fi ñu wax ne ñoo bokk baay bokk ndey Afrique bi benn défi am Sénégal moo am Mali moo am ci Congo moo tax tey ñuy sargal bu baax suñu étudiants yi mu ñëwaat it ci solos thème bi. thème bu ñu choisir tey dafa méngoog li am ci réew mi parce que savoir être savoir faire pour le futur loolu dafa am solo parce que dañu toll foo xam ne ndaw yi lu ñuy jàngale ci université yi lu ñuy jàngale ci école yi doyul il faut ñuy am de temps en temps ñu wax leen lu ñu war a comporter wu kon euh, naa vice médiateur de l'université su ma gisee li fa am nga xam ne crise de valeur dafa am te dañu war a xoolaat éducation dañu éducation aux valeurs dafa war a delluwaat mais ñun dañu bëgg dem un peu plus loin à IKG Amadou Mahtar Mbow lu yo lu gàtt ñu commencé di tàggat xale yi ci service citoyen créer que loolu mooy tax nit ki xam droit am ak devoir am ci société bi. IKAGI benn école bu juddu la ci atum 2013 ci impulsion benn organisation panafricaine bu ñu wooyee CAPSUP mbébétoom mooy jàppale ndongo daara yi nga xamante ne seen waajur yi seen loxo jotul seen ginnaaw. jóge ci loolu wax ci ci beneen bés boo xam ne bésu réflexion la woon maanaam xeltu ak lëlu waxtaan ngir xool fan la ñuy jëmale seen liggéey ñoom association des écrivains de la Mouridia xamal waxtaan yoo xam ne am na solo wàllu programme benn bi moo di amal benn revue scientifique littéraire culturelle dippee ko xalimak mouride waaye it amal ñaareeli édition foire des écrivains de la Mouridia jàpp ko ñetti fan jàpp juróom-benni fan ci weeru bi ñu dëkkmal ci Masaalikul Jinaan fii ci Ndakaaru waaye it ñaari fan jàpp juróomi fan ci weeru septembre fële ca grande mosquée bu Touba nañ ci ànd ak ay leeral Serigne Mortala Cissé secrétaire général association des écrivains de la Mouridia. Eh, yi ak ñi nga xam ne ñoo ñëw li nga xam ne moom lañ jot a def bu yàggul incha allahu euh, bi ci njëkk mooy génne benn benn benn magazine boo xam ne magazine généraliste lay nekk culturel et euh, de recherche nga xam ni dañ ciy dajale euh, li xam ne moom lañ jot a def ñu bind ko si ci magazine bi waaye itam xamale ñi nga xamee ni si ay écrivain lañ ay chercheur lañ ci bokk ci euh, tariqa bi li nga xam ne moom lañu def waaye itam itam nag jéem a euh, euh, tasaare njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba ngir ñu mun a faj saafara jàngoro yi nga xamee ni si moom la société bi di dund ci nga xam ne am nañu solution mën nañ ko trouver ci li nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba bind lees mooy rek ñu gën a xalaat ñu extraire ko xam itam nan lañ ko war a jëfandikoo moo xam ci wàllu politique la ci wàllu économie la ci mm. wàllu science sociale la ak domaine yu mel noonu yëpp daal loolu lañ bëgg euh, non seulement ñu xam sëriñ bi mais ñu xam lan la bind li muy bind lan lañ ko mën a jëfandikoo ndax loolu la xam-xam di jariñ comme ni nga ko waxee moom ni nga xam noonu la ko waxee woon ci maxaaliqu niiraan mm. waaw lool daal moo doon solos ndaje si tey ci yaakaar nañu xalaat yi nga xamee ne si moo fi jëp danañu permettre ñu euh, réussir ñaari activités yi nga xamee ne moo nekk suñ kanam mm. muy publication magazine bi ak itam organisation foire bi incha allah waaw foire bi dañuy ji comme ni ma la ko waxee nii jàpp nañ ni war nañ koo mën a def ci itam nañ ko defoon daaw rek lañ ko bëgg a defee. Mm-hmm. mooy ñaari parti lay nekk benn bi fii lañ koy organiser ci Masalikul Jinaan incha allahu ci dakaar euh, xëy na ci euh, semaine la dernière semaine du mois d'août su ko defee nag ñu jóge foofu dem Touba euh, nañ ko defoon daaw ànd ak muqaddima daayira muqaddimatul xidma mi nga xam ne moo nekk si jumaa ji ñu ànd ak ñoom def liggéey bi foofu incha allah. waaw loolu daal yaakaar nañ ni mooy xalaat yi nga xam ne mën nañ ko tënk mu juddoo suñu ndaje ci ki nga xam ne mooy njiitu kuréel gi di Serigne Babacar Xuma jot na it jot na it fësal bëgg-bëggu association bi ci ñu dugal njàngalem Serigne Touba ci biir curricula ci biir lekkool yi ci réew Sénégal muy xam ne ne ay xasida yu mel ni Masaalikul Jinaan Tasawul Suxbaar Tasawul Suxbaan nekk na yoo xam ne bu nga ko jëktalee ndaw ñi ci seen njàng dina mun a tax ba ñu xam fu ñu jëm te it moytu xeetu fitna yu ñuy dund jamono jile fii ci Sénégal dañ ko déglu ci école yi du préscolaire à la terminale rarement ngay dégg ñu tudd sëñ te alors sëñ Bamba dégg dëgg fi yàlla ci une référence n'est-ce pas pour le Sénégal mais c'est une référence pour l'Afrique et pour le monde donc jëmm jooju ak lépp li mu bind ak li mu jëf waroon nañu mun a sukkandiku nest ci yooyu élément ba leeral suñu école buñ ko dugalul ci école bi lay mel na sëñ bi daanaka nekkul parce que école bi mooy buntu xam-xam école bi mooy ubbi école yu mag yi mooy ubbi université yu mag yi. suñ bëgg bëgg daal mooy euh, sëñ bi ci boppam ñu fexe ba Cheikh amoon Bamba dugg dans tous les systèmes l' espace euh, sociaux ah xam ne ni ci réew mi ñu am ay références yoo xam ne suñu doom yi ak suñu jàpp ak suñu set yi dañ ciy mën a référé. fii la ñuy ndar keppee seen xibaaru mbàtt yi te di ngeen jëf ci déglu bi.